fan nos yi metti mi nos man naka jek wala sajo gi ni man naka jek mané domi xajji xaj bo bësal rek di nga yëg mané naka jek domi xajji xalé xale bu xees bu ma gis xaalis naka jek mané domi xajji amna ji am ci lum naka jek mané parce que xalé bi budé tar taxul mu nob la doole jo katé aadamo amoko du doole ya ngi deg xalé bi lenn dong la la mën a toppee nga koy jox ay 1000 euros ay 2000 euros ay 500 euro parce que tubaab dafa bëgg xaaliss te jigen ñëpp ayam yem Sadio nuyu naa la. ma nga lay fay señ Bada. saa am jàmm. saa am jàmm baax. waaw maa ngi lay ziar baax a baax. naka yi tey. waa léegi àdduna ngi lay déglu press bank fi ñëpp nga tag diaspora 221 fi sama gaay yi ñoom ñëpp a fi. yow waxal boo paree gaa yi da ko dugal maa ngi def émission émission su ma paree Feeling Dakar lay def émission suma pare paree la jëlaat foofu en direct nga wax ma cas bi ni mu demee mais waxal fii lépp cas bi ni mu demee attendant tàmbale waat ko. sëñ Bada. waaw yokkal yokkal kàddu bi. Mhm. Adama Kebe. ñaar mhm. lañu du ñu kenn moom kese. Adama Kebe góor la wala jigéen. jigéen la. waaw. moom moo ñëw sama kër. waaw. ju ci ma jubóole ko ak Sidi Diop. waaw. jubóole ko ak Ndeye Ndiaye Banaya. waaw. ni mu déparé mooy daf ma njëkk ab daf ma ne abal ma trois cent euros. dëgg la. Adamo moo ma ab trois cent euros. waaw ma yëkkati trois cent euros jox ko. dégg man nag maa def erreur parce que bi ma koy jox ay paquet laa génnee. jox ko. dëgg la. ca ëllëg sa. Mhm. ñu demaat répétition Sidi Diop. jour boobu la doon fecc ba gars yi wane ko dugal ko ci a ba mu doon wax waxam juree jooju. Mhm. ma yëkkatiwaat deux cent euros jox ko. dana doon ñu toog waxtaan man ak moom lu doon rapat ndànk ndànk muy dem ñu waxtaan man ak moom mu ne ma am naa sama jigéen boo xam ne dafa wóor indi na sama waa koñ indi na kii indi na kaa def na lii kooku moom dafa wóor te boo ko sama boo ko sa xaalis li leer ba leer mooy boo ko ñemewuma <laughs> lu mu ci def lu dul yoon rek ma laayfal ko boobu nga ko yàq xaw ma nag instant boobu dañ maa liggéey ñoom ñaar xaw ma nu mu demee. non da nga confiance rek man confiance rek loolu da ci saa si bi woo ma femme bi Adama Kebe wootee ni ma Adama ni nangam ak nangam sama nit la Adama ni ma amul problème jox ko. Mhm. tëbu ma tëb jox ko lépp. waaw première fois bi dama ko jox mille cinq cent euros. ak 500 euros yi ma njëkkoon a jox Adamo. waaw. lañ ma commencé di ma répété benn par benn. Adama Kebe su ma ko waree jox xaalis su ma ko nee suba naa la jox xaalis 10 heures léeg-léeg damay liggéey léeg may jàpp léeg-léeg mu nekk ci leneen. Mhm. mais su ma tardé ba midi joxuma ko. Adama mhm. moo naan ma kar waaye yow lu tax a jox ko xaalis bi femme bi nga xam ne Adama Kebe kii dafa wóor ñetti boy yi dëkkoon sama koñ. moo leen yóbbu. mais Adamo léegi nii nee na ma ma ci audio bi yow ba ngay jox ndaw si xaalis moom yëgu ko. ndaw si fa mu nekk ak Adamo fi mu nekk ak man fi ma nekk bokkuñu jour bu may njëkk a joxe xaalis bi femme bi yónnee xaalis bi directement pare woo ko moom Adamo ni ko jox naa ko mu ne ma bul jaaxle amul problème kii ñemewu loo ko hmm. mënt jox li leer ba leer mooy ñemewu bu jëlee sa xaalis su ma ko laay valee gars yi tapoté leen tapoté leen gars yi tapoté live waaw noonu lañu commencé su ma ko waree jox xaalis su ma waree jox xaalis Adama Kébé effectivement nag loolu mu wax dëgg la Adama musul musul taxaw Adama Kébé taxaw ma yëkkati xaalis jox ko mm-hmm. yaa ngi dégg waaw Adama mooy nekk ci suuf Adama man lay waxal influencé adama kebe laaj ma xaalis bi dugala naa adama kebe xaalis mhm. dëkkëru adama kebe lepp lepp lepp tous les preuves bi man bis buñ démé ci yoon dina ko génnee d'accord mom sax woo na ma adama naan ma après après da ngay am yoñu won ñu xol porter ma plainte waaw ma ne ko aw ma sa adresse suma bon sa adresse waaw dama lay porter plainte waaw yaangi dégg waaw lolu motax hmm Choco xaar nii su ma paree yow léegi damay dugg ci live Choco. parce que tamit sama xaalis maa ko moom. waaw. dama koo reyante dama xam nga simb nu mu méttee. ma mhm. reyante ba egsi fii ma egsi. Mhm. dajale sama mooni ay Adama Kébé Adama woon ñu naan dañ may dóor. ñoom ñaar kiif kiif. Adama du question ko moom moo doon ñëw di encaisser sama xaalis. Mhm. yaa ngi may dégg. waaw. Adama Kébé moo may woo. su ma woowee ni ma léegi dugalal ma deux mille euros. Hmm. nga su ma tardé cinq minutes. waaw su ma tardé cinq minutes rek aadama moom daf may woo. noonu lay def doomi xaraam waaye yow nangam ak nangam ah yow xoolal yow ki nga xamante ni ñetti booy yi kee ñetti booy yi kon sama koñ ñoo dend kër waxa waxa waxa waxa waxa wax ba ma génne jox ko comprendre man bu dee siiw wutuma siiw. bu dee buzz wutuma buzz comprendre dégg naa mu naa siiw a tax man boo dee siiw siiwuma ba may siiw du tey du buzz la mais wallaahi azim te lii ma lay wax nii moom xam na ci dara Adama Kebe xam na ci dara mais ci onze millions cinq cent yi Adama mm. Kebe yónnee na Ngaraaf fils de Sadio sama doom yónnee na ko mi euh, un million sa doom yow waaw yónnee actuellement ci onze millions cinq cent yi jox na ko un euh, un million joxaat sama jabar cinquante mille kon dix millions quatre cent cinquante mille moo des ci xaalis bi kon kon sa doom kon Adama daa bëgg a fay wala nu demee noonu daa. moom dafa bëgg a fay dafa bëgg a fay xaalis wala bëggut a fay. actuellement eh, joxu avance gum na sama doom un million. waaw. léegi léegi woo na ma ne ma mercredi dinaa la jox. ah moo gën comprendre woon choc nekk mu bàyyi live bi. waaw Adamo ci boppam ni ma. Adamo ci boppam ni ma. porté ma plainte ma ne ko yónnee ma sa adresse boo ma yónnee sa adresse. waaw léegi ma arrêté euh, wax choc mu arrêté live waaw. waaw ma ne ko du ma yónnee ma sa adresse yónnee ma ko li ma ko waxoon bu ko doon def. Mm-hmm. kon du ñu si fii. Mm-hmm. xam naa ko bu baax magam Ibrahima loolu mu wax dëgg la man dama doon nekk seen biir kër di simb ñoom rek. Mm-hmm. bi problème bi amee nee naa ko bëgguma dem ñoom rey di wax Ibrahima wala may wax lenn di def benn intervention seen biir kër. affaire bi nii la demee. Mhm. moom mooy ndey mbill gi. waaw moom mooy wax man Adama Kébé. Mhm. di wax ak man ma koy jox xaalis. Mhm. instant boobu nag man je ne je ne peux pas dire que liggéeyoon xaw ma dañ maa def lenn mais man je suis très très ko wóolu beaucoup. parce que Sadio. waaw man li ma wax ak yow li ma wax du benn Adama nee ma. yow bi ngay joxe xaalis moom yëgul tinul. neena mom daf len boole yeen ñaar rek bim len boole par la ci paré dem yow neena ngay dem di verser ndaw ci te mom yegul lolu c'est pas vrai deglul deglul waxe adamo parce que man duma sosol kenn adamo neena ma jël ko mi ngi ni dama bëgg rek mu leer voilà mi ngi non bo sa ngok waaw señ bara waaw bo ngi ziar legi ñu deglonté rek deglu na live bi deglu na cadeau sadio yi deglu na lepp nan tëj micro yi ñun ñëpp ñu dégloonte. d'accord aywa waa ci jàmm. mbaa yaa ngi am maa ngi lay bëggee baax di la ziar bu wér waaye di bëggee waa live bi bu baax sëñ Bada. waaw sëñ Bada man Adama boos day néegi di. l'homme n'a hmm. sama pire de sa valeur l'enfant bien préparé sponsorisé de sa famille. lu hmm. nekk mën nga koo waxal ci adduna bi. lu dul jël xaalisu jàmmoor man sàcc yére maa ko kon ci adduna bi. mais man Adama du ma jël alalu jàmmoor Sadio Ndiaye man ku xam Adama xam ne hôtel yu seer lay tëdd. man fi ma daloon ba may dem ci soirée ah euh, kii euh, Waly Seck bi du Sidi Diop sa foog naa Waly Seck la euh, kii la woon hôtel la woon aci ah, hmm. bi nekk Brescia ñëpp ko xam fay sama xaalis hmm. bu bëri Sadio Mané hmm. to ki Sadio Ndiaye ñëw ne ma fan nga nekk ma ne ko maa ngi ci hôtel bu ñuy wax hôtel Victoria Sadio mi moom moo ma fekk ci hôtel Victoria ma toog barki Serigne baaba Si mu jël ma ànd ak man accompagner ma yóbbu ma këram présenté ma jabaram présenté ma doomam ju jigéen ma def këram benn nuit ñu yeewu lendemain mu ne ma est-ce que amoo xamoo koo xam ne nii day yónn ay nit ndax dafa am ñu ma bëgg a indi Sénégal ma ne ko benn meer laa xam benn meer laa yor numéro téléphone am ma jox ko numéro meer bi ñoom ñaar ñuy déggante léegi nag ba ñuy déggante Sadio jot na koo yónnee sept mille euros xoolal ba mu ko yónnee ba pare la may doog a message ne ma adama tebe lima ko yonne ci xaalis ëpp na 7000 euro mané ko Sadio ya dof xana bala nga dugal di yóbbu. c'est pas vrai c'est pas vrai. nga nga bayyi ba non non non non. audio yëpp dama ko yore. Sadio man preuve laay doxee déglul nopi rek man preuve lay doxé yow yoroo preuve nopi ma ma nga wax mané ko Sadio xana bo démé ba yóbbu nit nga bayyi bam indi la ben nit ah nga dogotel doli ci dess des. Sadio envoyé ndo 5 nee ñukoy yonne koy man ma wo Adama Kebe ndax man la sonal aajo lan moo tax ma ko doon naan ko envoyé xaalis parce que Adama Kébé danaan Sadio bu ko yónneewul xaalis du mën a lijjanti affaire yi bu ko woyee jotu ko man woo ma ne ko Sadio femme bi woo na ma nee na yónneewum ko Kébé man amul fu ma Sadio Ndiaye joxee xaalis 200 euros yooyu mu yox moom ma ko jox 500 euros nee neeko fan la ma ko joxee 200 euros moom jox na ma ko parce que 200 euros man maa am parce que sama carte doxul ma ñëw ne ko sama carte bi génnul abal ma 200 euros mu abal ma ko mu waxaat 300 euros na 500 euros sénégalais yi ku xam Adama xam ne ay milliards lay yàq. ku xam Adama xam ne ay millions lay jaay trois cent euros xam nga ñaata la sëñ Bada trois cent mille ah. sëñ ah. ne woon Adama moo ko sàcc da yow xanaa war ngaa rey sa bopp trois cent mille mooy cinq cent euros nee na moom la ma jox ah xoolal Sadio Ndiaye topp di dugalal ndaw si xaalis capture écran yëpp a ngi nii bu yónnee saa yu yónnee gel bi xaalis man la koy yónnee ne ma envoyé na capture d'écran yëpp loo ci bëgg ba turu Adama Kébé da nga koy gis man fi waaw yow yow sànq boos yow sànq boos da nga ma daaneel sëñ Bara ma ma daaneel man fi ma jëm ragalu ma ko dama ne la Sadio Ndiaye bu amee benn fu mu dugal xaalis ci man na ko génnee bu fekkee xaalis bu ma jox la muy desas di xaalis bu bari na ko génnee man gor pire laa selbey sama yaay doomu séeréer laa ba may liggéey ñii juddoogul Sadio man waxuma a saajo de mais ñi ku entroit su Sadio sax man naa leen a jënd man amul ku may sàcc ci àdduna bi fii Sénégal fii Europe la dafa am yoon boo joxee sa nit xaalis nga am ay preuve les preuves sont là leer na la moom nga envoyé wala moom nga jox mais demal ci yoon nga teg ko ci yoon police woola nga génne preuve yi ci taabal ji fi du Sénégal Sénégal nit da lay yoreel nga fay nit ci suuf mu bàyyi mu sedd déedéet Europe doxewul noonu. bu la ñu koy génnee may moom a ñëw rek nga teg ko ci taabal ji mu leer Sadio Ndiaye mi amul lu ma koy sàcc soxlaa soxlaalu ma ko dërëm. ay nit xam nga lan moo tax waxuma xam nga lan moo ko métti parce que nee na li tax laa yifalu ma Adama Kebe ma wax la lan moo tax parce que Sadio da ko bind naan ma ay di laak yéen ñaara ko bokk ak nangam nangam ma saaga ndayem saaga doomam ne ko kattuma ci nday daal di doxati sëñ Bada gel bi maa ko woo appel xam nga moom day wax te yorul preuve déglul ma tegal la bu kenn wax déglul ma tegal la loolu laa preuve man preuve laay doxee moom yorul dara lim liy wax ay waxi kese la lay wax mënu laa génneel dara waaw preuve laa bëgg mais mais xam nga boos man bi ma lekkee xaalisu jàmbur damaa taxaw assumer samay responsabilité. damaa ko lekk damaa ko bara même yow boo assumé woon dañuy jàpp sa ndey parce que gel bi dalaa yónnee mille un million cinq cent ci turu sëñ mu leer naññ sa numéro téléphone di feeñ ñu xam ne yow dañ yónnee xaalis bi même woon dañuy doxaan sa ndey ndax moom yor na sa tur yow la ko envoyé man loolu amul parce que mosuñu maa jox dara man du ma jël xaalisu nit léegi déglul ma tegal la waaw kay. déglul ndaw saa ngi nii maa ko woowoon Sadio ma sëkkatal ma woo ko deglu mo sa mu naan ma di wax ak lu Samb bi wax bu dee yéen ñaar nangam nangam ko waxuma ko sama xaalis nangam. ma ne ko man lu sama yoon. yow man mo koy jàppale nan ko ko dugalal ko xaalisam mu may jéem a jaay affaire réewande di ma bind. wala bu leen ma dugal seen yii de bu ma ci dugal ko dégg nga. ko quoi xaalisu jàmmoor yow ya ko lek boko mu ta envoy nga xol noo ko joxe. wa bu ma ci woowaat bul woowaat Sadio di ma fa tudd leer na. ok tamit bu ma wowat sama yonde wu ci bu ma wowat momi it nga ok non non noonu xanaa kuy def lii ragalul xanaa kuy def. waaw mais boss. gel baa ngi noonu Adama Kebe ñoom ñaar yemale. tey tey mën naa dëgg seen day parce que man du ma tooñ du ma sàcc xaalisu jàmmoor sëñ Bada man garmi laa sëñ Bada eh waaye sëñ Bada xanaa da ngaa dof yow sëñ Bada man xaalis kese laa. bul ma taxa ubbi nday sama armoire bi kii mën naa jënd ndayam mën naa jënd famille man lu may doyee 500 euros. waxam ju rëy ji lépp nee na 500 euros la ma jox. war na leen a bett sax yéen sénégalais yi nee na la ma jox joxaat ma joxaat ma 300 euros mais du dëgg. 200 millions yi tax maa la ko 11 waaw. waaw xaw ma dugal xaalisam boo bëggee dégg dëgg xaw ma moom mooy mais yaa ko booleeg ndaw si mais mais yaa ndaw si. maa moom moo bëgg a indi ay nit ma jox ko numéro ndaw si booba laa ca pare mais man du ma lekk xaalisu jàmmoor loolu laa ko wax. waaw léegi kay ndaw si yow bu remboursé wut yow yow ndaw si bu remboursé wut yow yow da ngaa war a taxaw téye poñe ndaw si ndaw si remboursé. xam nga lan moo tax defuma loolu. waaw parce que damaa yónnee message naan ma dangaa tig dil ndaw si nangam ak doomam ju góor ma ne ko kattal sa nday yow ndaw si seen xaalis maa doon dox intervention kattuma ndayam laay fal ndaw si waxatuma ci am naa ci droit man kenn du ma taxal. loolu tax ma génn ci waaw mais boo defee noonu yow day mel ni kon nag ndaw si dalaa jox nga lekk parce ndaw si la ndaw si bu encaissé dalaa war a jox te yow boos da ngay neexul ba neexul mais yow da ngay la wax man la neex waxuma ak ndaw si mais dama ne la amul ñoom ñaar kenn ku ma ciy jox xaalis comme doon na ko génnee wala yow déggoo ma waa léegi ñoom ñaar wala yow déggoo ma waa dégg naa la waa léegi yow Sadio léegi yow Sadio kon yow léegi lu tax nga bëgg a attaqué

te 300 euros ah. yooyu boo ma yónnee woon tey sa carte ma defal la ko 1000. muy 300 euros continue ëllëg sa répétition Sidi Diop. waaw kay ma yëkkatiwaat deux. dama ëllëg jox la. moo dégg li muy wax c'est pas vrai man tëbu ma tëb ni la dafa am ñu ma bëgg a indi. barki Serigne Babacar Si yaa ma ko wax barki alxuraanu Karim. danaa dof dof lu di la bëgg a def ay nit. kon loolu mooy Adama Kebe parce que ay nit kay moo tax nga nga jokkoo ak Adama Kebe loo ko bëgg te indi nit looy liggéey ak Adama Kebe nee ko kon xaalis bi mu doon dugalal Adama Kebe pour lan la xanaa du pour fecc wala simbu organisé wun simbu kenn xewul nee ko lan moo tax nga doon ah, Adama Kebe nga koy yónnee xaalis lan nga la ko laaj ko ko nee ko lan moo doon am na ñu ma woo ne Adama Kebe moom. yow da ngaa bëgg dañ na ñoo ko doon laay fal mat na deux semaines ni nga ko doon laay na ñu ma woo bëgg nañoo dugg mais du leen mën a jël. damay bàyyi ba pare mais nee na Adama Kebe moom dóorkat la mais Adama kon xam ne Adama Kebe dóorkat la ba pare muy ànd ak Adama Kebe léegi Sadio waxal Sadio waxal. sëñ Bada. waaw ma ne Adama seen ndey. Adamo laa xamoon. waaw. Adamo laa xamoon. waaw mu ñëw toog sama biir kër. waaw. ma jox abu ma trois cent euros. ma jox ko trois cent euros. te léegi ma jox ko deux cent euros muy cinq cent euros. dañ may déglu dañ may dañ may non déglu ma rek déglu ma rek déglu ma rek bi ngay ñëw sëñ Bada da nga da nga wax tëj micro yi da nga koy déglu waaw dañ koy doog a leeral mi ngi assumé bàyyi ko mu continuer Bada yow ba laa ma noppi rek noppil ma laa demal continuer continuer sëñ Ba waaw continuer dama ni aha wow, sëñ Bada wow, wow, of laay wax bu leer nañ. I don't speak English mhm. of laay wax mhm. Adamo dama ko jox 300 euros sama bir wow, Wow. dem répétition di job, joxat 200 euros. cent euros mhm. danga ko abal ko moom Adama Kebe Adamo moma ni Adamo moma ni dinaa la booleeg sama benn maire boo xam ne day yóbbuwaate. lan moo tax ma wax la loolu. yóbbu na sama koñ yóbbu na fa six personnes. da ngaa bëgg a indi ay nit ñi ma dendal kër. ñi ma dendal kër moo leen yóbbu. ñi ma dendal kër moo leen yóbbu. six personnes yow da ngay déglu nag. boos yow da ngay bàyyi waxee après nga wax loolu dana wax. yow xam nga ni yow mais yow boo waxee loolu c'est pas vrai. yéen a lekk sama xaalis mais da nga li tax ma ne yéen lekk sama xaalis wolof laa la wax mais da ay preuve doo kat ndayam yónni ko sëñ Bada mu teg ko yow Adama Kebe waa léegi boo yoree ay preuve da koy génne xam nga yow xam nga da ngay wax ba dëgg ni si yaa ngi doog wax di saaga waa léegi dama ne Sadio yow da ngay jël wuy ma da ngay jël preuve yi leer ba leer mooy sa adresse su ma ko amul xam nga ni kon bu subaa Sénégal dinañ dégg leneen man sama xaalis kenn du ko lekk barki Rasulullah président bi loolu te jox preuve tegul preuve fekkee dañ laa dóor te wax te jox preuve bu bu fekkee ne dëgg la kay ñu kat lay aaduma ak ko ànda nu fay la sax xaalis bu dul dëgg nga ñu xam ne du dëgg loolay wax bi xoolal sëñ sëñ Badal moom moomu ci boppam am na preuve yan preuve may ma tuuti rek yow min sàcc amoo moom moomu ci boppam yow kon dama ne xam nga yow léegi nee nga 7000 euros léegi nee nga 7000 euros yow yaa ma léegi yow nee nga 7000 euros waxoo léegi 7000 euros yow mii yaa ma déglu ma c'est pas vrai c'est pas vrai dama ni yow dama ni yaak Adama Kebe sama 11 millions day génn dégg nga ma li wax man de yore lu ma la li tax porté wu ma ah, plainte ma sàcc xaalisu jàmmoor te bu dee man tax ma ne porté wu ma plainte ndayu police nga dem porté plainte ñu woo ma ñàkk sax ak naa droit wuy ji parce que man du ma sàcc yëfu jàmmoor dugalu lu ma dëjjaw ndey joxoo ma daka yaayam demal police suba yónnee sa adresse sa waay lan mooy yónnee sa adresse dof fu dëgg sëñ dugal sa adresse ma gën a xam ci àdduna bi xam na sama yaay xam na sama papa xam na fi ma dëkk xam na samay nit xalaat Sadio Ndiaye sama mag nekkoo ñoom rek nekkoo ñoom rek yaa ngi déglu boo nekkoon ñoom rek heure bi kenn waxatu ko da nekkoon Sénégal heure bi kenn waxatu ko wuy ma sax Sadio Ndiaye non xoolal wax ju bari ji taxul may wax lii moom taxul may laaj xam nga lu ma intéressé du déglu yow fi la yi teg yow moomu yaa war a déglu yow moomu yaay déglu te xoolal yow ma ko sa duul di war naan dañ laa sàcc say preuve ko sëñ Bara bu amee lu ma ko sàcc na la ko wan bu dee désastre na ko génnee bu dee Wave na ko génnee Orange Money na ko génnee euh, Paypal na ko génnee euh, nu mu tëddati. Euh, foola foo ma yónnee xaalis kattan ndeyam yónnee ko sëñ Bada mu teg ko. yow réewoo sax. mais li leer ba leer mooy xool. sa wa waaw na nëbb sa adresse. bu la sàccee kattan sa ndey nga wuyu ko la sàcc waaye ñàkk nga fay de. mag mu toll réew mi am na yoon adduna bi am na yoon. joxe sa xaalis di kat sa ndey nekk fi di dul. te dal sa dafa yaay waay am ngay preuve da ngay génne waaw na la ko sëñ Bada sëñ Bada sëñ Bada ma génn. Bada waaw Sadio waaw. fi nii

waxuma loolu de gars yi li ngay wax waxuñu ko de xam nga lan la wax nga génne transaction yi Adamo a la sax Adamo soo ko bàyyi bu wax a Adamo génneel ndayu transaction yi Sénégal yi gis waa boss yow bi nga ñëwee daga nga ne da nga ne tëj micro yi yow wax nga ba doyal léegi da ngay jéem a da ngay ñi nii di yu waaye di ko waxu parce que booy wax ni boss yow booy wax ni bu yàggee bu yàggee ñu ne dëgg la boss mel mooy man yow booy wax ni sa wax bu yàggee ñu ne dëgg la parce que sa wax ji daa bari léegi bàyyi ko mu wax du ma jin sàcc ma sa dugg ci man toj sa lëfal ndey man du ma ko mu wax parce que mi bi bu ko ko pare bu chaque jour ma ko wax ma ko rek ma ko subateel wax mu ma na nga fexee jub parce que xaalisu jàmbur kenn du ko lekk waaye bàyyi ko mu wax Sadio waxal Sadio Sadio Sadio Sadio boko na la jappé ni du dem dé. man dama bëgg nga yónnee ma preuve yi ma ma xol tek ko fi. preuve yi. Seigne Bada. waaw Seigne Bada. waaw Seigne Bada. yaa ngi may dégg waaw Ma ngi lay dégg. man live du tax mo wax lo xamni amul. dëgg la. Adam. yow kenn musula ko ci détail Lool mom xamna ko kenn musula xam ci détail li may wax nii. waaw. dama ni. sëñ Ba. waaw waaw. Adamo ñàkk adresse moo tax ba tey jii yóbbuwuma leen ci yoon. waaw no xam nga Adamo bu la joxoon ad non bu la joxoon adresse am non boo ko porté plainte day jàpp. même Adamo su ma amoon adresse am dama ni Ba damay wax waaw su. am naa photo. waaw booy porter nit plainte donc booy booy yóbbu nit ci yoon boo koy porter plainte dafay am adresse nga porter ko plainte fan nga koy gisee. moo leer na ko leer yàlla woon naa ko sa tànk dootu ko dootoo ko teg itali ñaata ñaata c'est dommage jour bi mu ñëw Italie daf ma fekkoon ma bu mag taluma ko mu nax ma te doxaloo il est très malin il gis nga jour ko nee doo teg sa tànk fii xam nga du mu def sëñ Bada. waaw waaw gis nga yow ah. li li yëpp xam nga li ngay wax ni yëpp métti ba xam nga loolu métti li ma amul foo dëkk man su ma xamee foo dëkk aadamoo Macky Sall ak ñi ngay wax ak ñëpp intéressé wuñ ma billaahi barke Serigne Babacar Sy su ma amoon sa adresse talaata àdduna dinañ dégg leneen ci yow Sadio mag du fen génnal transaction yi dan laa mais sama xaalis yow laa ko jox loxoog loxo ma ne kattal ndey transaction yi yow joxuma la 300 euros loxoog lan nga ma jox joxuma la 200 euros loxo ak loxo. waay waay déglu ma mu wax waxu te yow 11 millions nga ma wax 200 euros. yow joxuma la 500 euros loxo ak loxo yow. 11 millions nga ne ma 200 euros nga ma jox. mais li ci des Adama Kébé laa ko doon jox. 11 millions waaw li ci des Adama Kébé laa ko doon jox. te yow yaa ko yow yaa ko doon influencé. yow kattal sa ndey waay. yow yow yaa koy influencé parce que yaa may woo wax ak man. waay yow toppal ndeyu fële waay yow. yow xam nga ne Adama Adama soxla sa dara. xoolal. sa waay wuy ma li jëntal ndeyu ko nga jox sa xaalis. li ngay wax nii xoolal dama ne la li ngay wax ni yëpp leer na leeral yàlla bi jox sa xaalis yow tu es à distance lijjantil ndayu sa adresse su ma ko amoon dugg naa ci live Choco Kebe di laajte sa adresse dama la su ma ko amoon yow yaa ma booleeg Adama Kebe yéen a sàcc sama xaalis dama léegi man maa man yéen a sàcc sama xaalis yaag Adama Kebe yow ak a sama xaalis yow boobu ba léegi yow boobu ba léegi onze millions nga waxoon fële mais waaw nga soppee entre moo dafa mel ni deux cent euros la ak trois cent euros <laughs> yow onze millions nga waxoon fële yow tamit après nga ñëwaat naan trois cent euros deux cent euros yow tamit da ngaa war a wax leer nag waaw sëñ Bada waaw sëñ Bada sëñ Bada waaw nee na nee na 200 euros la ma jox nee na 11 millions lañ ko sàcc ci 11 11 11 jox ma 200 euros nee na. non <laughs> lay dégg. Sadio maa ngi lay dégg. sëñ Bada ngi dégg. laa teg ci loxo kon 11 millions 500 euros la 500 euros la yi moom ak Adama Kebe ñooy. ñoo ànd la ma si sëñ Bada li ma bëgg a xam nga ma si yónnee. waaw. laajal ma ko loolu. dégg déglu ma. 500 euros yi njëkk yi 11 millions yi. sëñ Bada avant muy egg 11 millions 500 euros yi njëkk yi sa loxo laa ko teg. déglu ma déglu ma déglul déglul déglul. déglul Adamo. Adamo. waaw Adamo. gis nga sa làmmiñ wu réew yi ngay wax. waay sëñ Bada mënoo maa di nga wax rek li laajal ma Adamo xoolal nee na 11 millions nga ko ko yónnee ñaata nga ci jox Adamo boos day néegi waaw ñun loolu boo ñu waxee loolu euros yu njëkk yi. waaw 500 euros yi 11 millions yi fi mu commencé. waaw sëñ Bada. 500 hmm. hmm. euros yu njëkk yi Adamo laa ko teg ci loxoom. man. Hmm. mu yow. 300 euros ci tey ci ëllëg sa 500 nga ne da nga maa jox 300 euros jox ma 200 euros. sama nekk 300 euros. ok baax na continuer sama euros. continuel répétition Sidi Diop 200 euros du 500 euros mais continuel waaw. waaw may ma tuuti rek ma wax la déglu ma. Adamo man munoo maa wax lu ma. lu dul dëgg waaw garaaw léegi jox nga ma sa néeg. barki Serigne Babacar Si joxaat ma ci Sidi Diop 200 euros waa léegi continuel na mat 11 millions rek demal. së sëñ waaw. Mm-hmm. yéen a ngi may dégg. waaw. muy 500 euros. waaw. ah jour ca lëg sa. waaw ma yónnee Adama Kébé 1500 euros. waxuñu waxu Adama Kebe de man laa la wax man. déglu ma man waxuma waxu Adama Kebe de. man laa la wax Adama man xaw ma Adama Kebe. yow yaa tax ma xam Adama Kebe yaa toog sama saal. yow da yaa toog sama saal. di wax waaw li ma Adama Kebe ñemewu ma su ma ko eh, eh, eh, sa xaalis bu ko lekkee jox ko wóor na boo ko joxee dix million naan wax a wax wax yu sa wax yooyu ngay wax. Adamo Adamo yow xoolal xoolal ah, xoolal ah. yow ah yow. yow li la may chance rek xam nga lan la xamuma sa adresse ah. mais su ma xamee sa adresse Sénégal dinañ xam ni lekk ngeen sama xaalis. yaa jël sama xaalis yónnee naa la 200 euros joxaat naa la yow yaa ñàkk fayda ci mag mu toll na di duul. waa léegi boos ko moom mu wax boos ñun dañ lay laajteel bu fekkee ne moom li a xam mooy Sadio 11 millions lay toppee wala 500 euros. loolu la a xam looloy demande bi nag. sëñ Bara. waaw waaw. Bara. waaw. Adamo. ak Adama Kebe. li ñu def xam nga lu ñuy wax association de malfaiteurs. mo waaw. waaw ñoom ñaar. oui naa la xamu moon Adama Kebe. Adama moo toog sama biir néeg. waaw di wax ni ma dinaa la boole Adama Kebe. sama koy indi fa six personnes. Eh, wax a wax ba eh, convaincre ma. xanaa nit du jékki-jékki non non déglu ma yow li ngay def nii yëpp xam nga ni Sénégal ba mu daj kenn mësuñu fee def Sénégal ba mu daj kenn mësuñu fee jiw xaalis mais dama ne la yow Sadio Adamo Adamo